sëñ bi dafa nekkoon fii fi Touba gii lu ma nangami at fekk na booba nekk dekk na fi waaye teewul boobu dafa bëgg a dem rek wéeti bu jàmm boroomam Jolof nag mu dem fa foofu ba kibaari googu yi am na fa yenti weer la fa am képp nga laate liggéey bi ñu jaxase ko ba ñu gis si ko fa fekk na moom boo na siiw dem daal moom boobu moom dana siiw ni dem nga amul man seen seen sabab lu muy ja waxi day jaxase kat rek diggante moom tubaab bi ñoo ko jaxase ko ne ko kee doo doon jëmwaane foofee ci si kaw la jëm si bëgg a xeex yow rek tax ni ñi fi ñi ko jëkkoon defoon fekk na moom dem rek dem rek la bëgg ci sama kanam loolu lépp na maa ngi teew daal mu mu ca toog na fa ba am bis ku ñuy wax ku ñuy wax maam du ñëw fa fekk dégg-dégg boobu yi moo tax mu dikk dégg-déggu doole ji yëmbu yëbbu foofee ak mbooloo moom fa yëbbu maanaam li nga xam ne moom la sëriñ Moussa Ka way ci jasaawu sàkkoor ñu ne dañu fay denc bal ak i fital waaw loolu foofu nag rek waaw waaye nag maa abdu nag fekk boobu moo ñël benn séet yi ci booba ci ñu tàmbali ko ci moom waaw mu ne borom daal naa ko naa ko seeti kon ko seet ko ci ñëw wax ma lu fa ne dem dem dikk yàlla ci bis bu mu ñëwee fekk bu sambala bi boobu mooy jolof bu ñu financé ci suba waaw sambala bi bay koo ca jolof ànd jolof gépp ab xale xale lañu waaw xam nga buur bu jógee waaw ñu loolu laa bari bari ànd ak gàngooram. waaw ak kii fas ñaari góor ak lu ne. waaw lépp maa maa ngi jàll moom man. ba mu dikkee Thierno Thierno sëñ Ibrahima xam ne moo ci daal muuti moo daal muuti. waaw fekk boobu moo fa mooy mooy fi fi mu fi mu jaar. waaw mu bi sama la li moo fi ñëw. mu ne ko tekki na na waxtaan. laaj ko nag boo xam ne lu yoonam. ko dara dafa dikk rek fekk ma fi. ma dikk si rek di ko sargal maa sama gana yenn fa ñu gana ko lan goo xam ne kenn su ko gis ci ngoon ci takk soni ko mu gont di dem waaw fekk man mii am ma maam bi wax maam sëñ maam ma ñu man nag maa ko jëloon yëpp xam moom ñu dem ci ci bari waaw takk soni su da ñëw moom fanaan si fa sëñ bi ñu moom dal ko dal bu mel ni bu mu dalaloon kale moom lu mu kon moom ab lu ngi si ko démagul waaw ci suba dañ bi yéen sama maam jooju mu dem ah. waaye ñu daal si xëyee nag di dellu tàggu sëñ bi ko maa ngi dellu nag nekk fekk na booba yi yi mu gis moom la xalaw moom lay waxi bu deme bu mu demee nag fekk na sambalaw bi amoon na ab tampon bu bu mu daa def ci leetaram mu yàqu woon mu yóbbu ko ndax di ko defar lu maa bi dox na ba dikk foofee ñu ko defaree. waaw seen tamp yu bari ne fa. waaw ma ne waaw bii ana ko moom bii waaye ana ko moom bii ana ko moom bii waa bi. waaw donc bii bii bii sàmbaraw bi wala wala yow dafa ma ko doon defar la. waaw ne ko ma gis waaye ndax pare na mu ne ko waaw pare na te kay kayit ngi fi yu bari. waaw fab ko def ko nii teg ko ci kayit boobu. waaw sànni si kayit rek mel ne amu ci soxla. waaw mu dem rek mu fexe ba. koy boole. waaw da nga koy yóbbu ba ci suba ba ci suba sax. waaw daal di bind benn lettre. wax ne man sama raw bi. waaw ca ko bind man sama raw bi. waaw maa ngi sëñ Bamba. waaw yow yow borom ndar. waaw defaroo ñu ngi ci yow. waaw. sama mag waxoon na la lu ne nii. waaw waaye su moom boobu dafa bëgg a daw. mu di la dikkal. waaw. ba ko waxee ne ko bis sàngam dara ñëw def nangam ci ci jàkka yi yan yan ja fekk na mat na ab diir lu sori daal defaru daal di rëy nagam daal koy seet ay seet daal di warlu ay ay baraay yu jeex lu ne ak ak sanqal sak yeen yi daal di xëy dem rek bis bu nga xamee ne moo wax ne borom daal ne ko ne ko boo nangam wax wax ji ñanga ñang bis boobee fekk na def na ba njëkk borom daal itam xëy rek ndar di di dikk. waaw. naka maa ngi si sekk mu ngi yaan si guddi ga dem. ko fa. fekk maam Abdoulaye ñaan na moom. ah déedéet. sambalaw bi waaw dem dem yëpp ànd jolof yëpp daw. waaw mu ne ko man man sama de man du ma koo ko man man li la wax moom. man moom maay dikk ma ak sëñ ma dana ñëw si yow. ke kii mu ne waaw woon man nag la wóolu la ngi ñëw. waaw. maa ma ma du bind lii. waaw def ko si am waaw. xam nga tam tampon baa ngi ci. waaw tampon mu ci suuf waaw suuf bu ñu andee defuñu bu ñu andee courrier ba. waaw ñu ci lettre lettre boobale. waaw. wala la gis ko. waaw xati ko daal li bi nu woo nañu ma woowal waaye nañu ma woowal kii yaa ko war a jàng jàng ko. waaw fekk ma ko bindoon. waaw. mu jaar fu mu jaaroon ko yow borom ndar man sàmbalaw bi maag Bamba ak Jolof gépp waaw defaru dikkal wu ci sa kaw. Ah, loo ci xam na. Hmm. ah xam ci dara mi ngi nii rek xam. jàpp jàppi ko rek jàppi ko rek fekk leen bala ñoo ñëw. jàpp jàppi jàppi leen rek laa ci xam. kii kii nga xam ne moom la moom la fa moom mu fekk ma ko nag. waaw kooku de mënuñu njëkk rek mooy sëñ bi rek. waaw ah, kooku ni ñu waxee kattan bari rek mel def ngeen loolu des ko mën a. man de mën naa ko mën a. dafay wax ne ko ay si boobu defoon. waaw te dafa am espèce espèce yu bari. waaw jiraaf euh, yëpp. mu dikk ba ñu ànd ak ñoom. fukki fan ak juróom-ñett. dara ba nga yabal naa ñu koy jàpp ngir dañu ko bind ay waata woof ay weer yoon dikku xëy na bu dee ko ne ko benn bataaxal bu koy wane mu si jàjjab bu ñu ko yow di ne fa moom nga bàyyi ko waaye nag boo ndax jàpp ne ko woo da nga ne ko naata bu ñu ko mu ne ko kon nag da ngaa sant chargé ba ci jëm fu ñu si météo garaaf ba ci si waaru ëllëg yeneen fu ba mu ko defee sëñ bi rëy na loolu ma ne daal di saxaar wàcc Louga góor gi ñuy wax sëñ Omar Ndiaye te mu ngi moo ko jox ko fasam ñoo fa la ñetti at ci rek boo ko war a tërëf waaye të tëjee waaye tërëf sax du ko def mu war fa soo topp guddi gi topp guddi gi bi ñu ko boolee nag mu war ko woon yoon wi dina am ak loolu dem ba ci yoon wi mu ngi mën tàyyi na tëdd boole ko ak benn mu defal tool bi tuuti te ñu ngi gëstu ko bi di sori te mu ne ma fee def dara lu may fa bàyyi fa suuf si ñu am rek di wax ba dara ñu ñëw nag dafa def mu yegg mu mu yegsee fekk na sëriñ bi génne na yéere yi yëpp la nga xam ne daan daa ko xooral bu ñu ñëwee sa jàpp ñu ñëwee sa jàpp bi di julli woon sëriñ bi ñu ne ndax ceerno yëg seegut ñu ne ko déedéet waaye dañ daa faa sëriñ ceerno yëg si na moom sëñ ma gis ko daal di ko ñëw nga mu ne ko waaw mu ne ko kon sama yaa ko napp ànd ak moom tam ci kër ga caara di ko bëgg a nekk ay waa ba mu demee bëgg bunt xër ba mu ne leen dut lee lee sa indi la maa ngi bëgg dugaat ci kër gi te sama borom xamaloon na ma ne seet dugaat ci kër gi aram ma ne ko def waaye bi ngeen ko taxaw ci ëtt bi caara yi bëgg a wax ak mu ne ko bu ma yàggal dara jëru ma wax caara la nga xamal moo di bëgg lii ca ngoon dañ ko biis ca ngoon ba nga taxawee ak waa bi ak caddo ci Louga ngeen di wax nga taxaw ci lu mel ni ab dott ndar bu am daan jëf dott ndar xoolal xool ngeen dox ci say tànk mu ne la wóor na maa ngi doon jàkkaar ak moom caddo bi mo sànn damay la jiw rek espagnol si waaw naa ko mën a dafay wax na ko ay si boobu defal te dafa ay espèce espèce yu bari waaw jiraaf njaam rek wala wala eh, chef yi newoon foofu yëpp waaw mu dikk ba ñu ànd ba jeewal fa ñooñu ñëpp ànd ak benn benn gaa benn sandarma waaw sol sol yére yére wolof ànd ak moom sama kanam mi ngi fanaan si waaw weesu alxames la waaw ñu fanaan si guddi ajuma la tan hmm. ci xew Cerno hmm. Cerno na waa ji moo ñëwati moo ab du dégg si na ñu hmm. ko waa ku dikk dikk ne ko man de li de ku mu gëmeewu ko hmm. ni ko ayca daal di defaru ci bëccëg boobee ci ci gu ajjuma bi dafa wax ne mi bëgg yu bari yëpp hmm. maa ngi maa ngi taxaw nag ko def jant ba so ci ajjuma ja ci suba sa ñu hmm. daal di wax fi sew sew nii wax wéla wax sax la dajal teel sëñ bi génn ci jàkka ja takkal nañ ko fa sama wal ba noppi mu woo ma maag sëñ Modou Moustapha ñun ñaar boo noo fa nekk ci di gone fekk ko ci penc ma am na foofu garab goo xam ne sax garab la gudd a gudd dañ ko gor léegi foofu lañ taxawal booba fa fa taxawal fa lañ taxawal fas fa ci doon di war dañuy woo ñu ñëw si wetam ñaan suñu ñaari bopp dénk na leen yàlla maa ngi dem